mu toll nii ay fës jën balay lekk. laa ilaaha illallaah da ciy xel de li ma sànq xel nañ ko freiné. rasit xel nañ koy de. oh yoo. kooku moom du wax lu baax. bu ko laa ilaaha waa ma ne. Ah, xam naa dañuy lu foofu rek ci match bi nga xam ne moo war a daw suba Sénégal Égypte. fële ca Algérie waaw. yow yow xanaa liñ dóor naar yi. dama juum waa Algérie li leen toroxal toroxal yu métti. waa mais surprise bi si réew mi tamit surprise bi. ban surprise. Eh, Viviane. yow bàyyil ma Viviane keroog waxoon naa ko fi waxoon naa ko fi kii. Viv Zeyna Ndour nekk na li muy toog di bokk bi yëpp woykat la fecc na dëkk bi yëpp ñu naan moo woy woyul. <laughs> ah woyul. en tout cas def na nii de. ay di lëmbal. mais mais eh, Zeyna. <laughs> mais bu woyee dafa war a way nag. Euh, bu wayee dafa war a way bu dee mën na. waaw ndax euh, ku ñu ne Viviane Ndour mooy. sa sa yaay bu euh, bu Ndour di sa baay. doon gawlo biir ah. waaw bu dee bu dee mën na way. dafa ah, war a way li mu woy neexul. est-ce que moo ko way loolu loolu man man je crois man ci li ma li ma jàpp <laughs> est-ce que du voix Viviane. lañ jël teg ko. mën na nekk dañu def clip bi. ñu ñu man li ma jaaxal <laughs> benn refrain la jàpp ci woy bi. toogal toog toogal déglu ma. toogal déglu ma waaw te te ba léegi ñu ngi koy déglu même ñun ñi nekk ci ci ci ci alentour yi ñu toog di déglu Zeyna ba léegi. déglu mais toogal déglu ma ji am na lu mu ci teg noo. lan la ci teg. Euh, toogal déglu ma man la xaw ma lan. Euh, de jàpp toogal mais moom la Zeyna Ndour. waaw doomu Bouba ak Viviane. est-ce que du Philippe est-ce que du Philippe moo ko doon moo ko moo doon bindu texte yi tamit. Philippe de bu dee moo bindu bindu dara. ah. toogal déglu ma rek toogal déglu ma rek sa yaay seen yaay ne la papa yaa yaa xaw ma sori leen di génn damay nelaw bu leen ma sonal xaw ma lan <laughs> toog mu ne la yaay toogal déglu ma loolu la Philippe bind Philippe <laughs> non Philippe Philippe sax ñu bind en tout en tout cas euh, def na defal na defal na yaayam surprise fi ne nii foo dem ci internet moom la ñuy waxtaane di ko ñaanal carrière bu fekkee woy la bëgg def yàlla yàlla jàppale ci waaw <laughs> fi ngeen di jiy gaana bu mu jug di tàcc te ngeen rek ah, yaayam de war naa mën a ne yow lu a nekk la waaw en tout cas en tout cas foo TikTok nii rek Solange ñu focc mu ngi noonu Ousmane. Euh, conseil wu ma euh, waaw borom ñaari jabar yi nga xam ne euh, footballeur boobu borom ñaari jabar yi nu mu tuddati sax. Cheikh Koyaate waaw Cheikh Koyaate daa kii kii dàllam yi dañ ko ko dul delloo. ban dàll. dàllam yi ñu jël benn dàllam bi. entraînement. waaw ci lion yi. xaw ma Koulibaly la xaw ma am na kuñ ci jël benn dàllam de te buñ buñ ko. Ah. buñ ko ko dellul moom suba ndax dina fubal. ñëwoo ko. Sénégal lañ ne. Ah, lépp mën a ne. waaw ah, dàllam bi ku ko jël moom lu mu ci jublu. Ah, jël nañu benn dàllam de. ci yàlla doy na waar. man comprendre ma daal. waaw ba taxit suba la match bi foofu la ca stade Abdoulaye Wade. ca jël jàmbur bu doyee ko la lu mu koy doyee kenn xamul lu mu koy doyee. <laughs> benn pat. waaw pour lan. waaw yóbbu ko ci benn sëriñ mu fen la fen yu tooy xepp. waaw mais da nga yàq doomu jàmm mais mën naa am aussi mu réer ci bagage yi hmm, mën naa réer ci bagage yi de. yàlla nañu yàlla jéggal suba daal la ca match ba fële ca stade Abdoulaye Wade fële ca Diamniadio waaye Ousmane mu mel ne Sénégal lu mu rabrax ci përëm billets yi nga xam ne ñu ngi koy jaayee dix mille francs am ñu ko jël di ko jaayee quinze mille yi nga xam ne mooy jar cinq mille ñu koy jaayee dix mille muy revendeur yi. mbettuma hmm. Sénégal la. Hmm. xanaa xamoon ni fenn Sénégal yu ci bëri ba ci liggéey yi ba ci ba ci booy xool ba ci ba ci kaw ci kaw waxoon naa la fi keroog sàcckat yi ñu ngi sol costume yor cartable mhm. ñu climatiser seeni oto mhm. sàcckatu jurgóor yeeg coton dañ tëj ci kaso bii mhm. sàcckatu jurgóor yi dëgg la ak coton tige yeeg benn nenu baxal romb ko toj ko nii waa ji ne la wóob sàcceem ñu tëj la nii yàq sa vie ñu leen ni mais sàcckat yi dëgg affaire ba ca kaw la ca kaw la dafay yàgg Peuz dañ koy wax te dee. non dëgg la. dafay yàgg. parce que ñoom la ñuy joxe cent mille. Mhm. ñu jël kenn joxe ko cent cinquante mille. ok muy egsi si Peuz. Peuz mhm. jëndee cent mille. Mhm. ne damay jaayewaat cent cinquante mille. jaayee cent cinquante kay jaaye deux cent. Oh, muy def nii loolu moo am di def nii di def nii ba ci projet yi leen di jox dañuy taxaw ne projet bi dix mille la. te projet ba dëgg-dëgg li koy defar cinq mille la. Hmm. nga dem ci nit ki jox ko mille mu jël 4000 yi jël jël mille francs yi denc jox keneen ko 3000. waaw keneen ka jël ko dox ko 2000 ba bu àggee ci ñi ko war a defal finition 500 la ñuy jot def ci 200. dëgg la ñëpp ñëw dee. dëgg la lii moo fi am te du fi jóg ndax nii lañ mel. ñaaw na de. man yow ci gaal ngay dugg. waaw damay dugg ci gaal yi dem. <laughs> pour fan yi bool mu gisul rek xamal ne dem naa ci. man de ma gis man dalul sama man de damay jéem a yaa naa mu hébergement ñu ngi ñaanal tamit suñu gaynde yooyu suba incha allah. yàlla may leen ndam revanche la nag. yàlla may leen ndam lu. est xam nga ni match yi ñu mujjee joué ak Algérie yëpp Algérie moo ñu gagné. Hmm? surtout bi ma gën a naqari suñu final ba yaakaar ba deux mille dix-neuf ba. Hmm. barki Serigne Touba Sénégal jàpp ak gars yi dipp dar dipp dar ba Algérie def nañu match bi yëpp ñu topp ci mbaaw Mm-hmm. parti boobu ma amoon yaakaar mm-hmm. mais parti boobu est-ce que du man maa um um Sénégal loolu xam nga lu ma defoon mm-hmm. caleçon bu verte laa defoon def si photo Diao Baldé rek xaar ñu jël ko <laughs> yow koy wax nga li um sénégalais yow yaa um loolu noo ko mënee def Ousmane Ousmane loolu noo ko mënee def oh mais tax euh, loo loo muñ jeex xoolal la ca topp. waaw day saan te ñu ngi ñaan bii di ñëwaat. ñu jëlaat ko ñu làbbali fas. wax dëgg la ay jàmbaar te lépp mën naa nekk am incha allah ah, ñu ñaanal leen bu baax a baax. ay jàmbaar leen ay jàmbaar leen démb rek it euh, dañoo niil. Mhm. ak Rwanda. Mhm. dañoo niil ak Rwanda. nga xamante ni ga ay jàmm ay jàmbaar lañ daal barki démb sax su ma juumul waaw. suba daal incha allah score bi yàlla def ndam dama koy wax. waxal score bi waaw ne 2 2 0 lay nekk 2 0 jàpp leen waay. 2 lay nekk incha euh, yàlla yàlla daal may leen ndam Ousmane xam naa dañuy daal di. teg score bi ñaata la nga ni 2 0. ok wala 2 1. waaw eh, déedéet déedéet. xaaral xaaral xaaral wax lu leer nañ.